dal leen ak jàmm léeboon wala lëppoon lu ci mën di doon mbir mu doy waar moo xew ca Cambérène ay policier yu doon garde aide alimentaire ba ñu stocké woon ca Cambérène ñoo nelaw ba ay samba booy dugg fa daat fay sàcc lu toll ci fukki sàkku ceeb waaye nag sàcc yooye ñu raw ndax dañ leen a mujjee teg loxo li ci doy waar ñi jàpp sàcc yooye du ñenn ñu dut waa gendarmerie nationale mbir mi nag nar a julaat ab rivalité bu rëy entre ñaari corps yi mu di police ak gendarmerie ndax kat bu ñu fàttalikoo ci ayu bis yi nu génn ca diwaanu Touba police ak gendarmerie jotoon nañ fa jàppante jàppante yu met ginnaaw ba ay gendarme jàppee ab policier daat koy agressé door ko coow loolee nag demoon ba daal di mujjee àgg ci noppi kilifa yu mag yi maanaam état bu Sénégal ba taxoon nag ñu daal di jëlee ki nga xamante ni moo di commandant brigade gendarmerie bu Touba Belel ci boppu gendarmerie boobee waaye nag bile yoon la xew ca Cambérène moom policiers yi ñoo weere ndax ñoom la ñu dénkoon ñu garder li nga xamante ni mooy ed alimentaire ba ñu far nelaw ba ay samba boy jaare fa dugg sàcc fa bu ñu sukkandikoo nag ci témoignage yi nga xamante ni site bi di kéwaloo jot na ko ñii di gendarme yi ñoo yëg ni am na ay saaku ceeb yoo xamante ni ñu ngi koy sàcc ca stock aide alimentaire ba nga xamante ni moo nga ca Cambérène te ñii di poids police bu parcelle ñoom ñoo assuré woon surveillance bi ca noonee nag ci la waa gendarmerie nationale daal di teg ay ndëgg sërëx maanaam ay planque daal di jublu si enquête bi ngir jàpp ñi nga xamante ni ñoo di sàcckatu ceeb yi le ci jamono joo xamante ni mbir yi mu ngi xewee ci ab zone de compétence boo xamante ni ñi di police nationale ñoo ko war a assuré ca dépôt ba nag lu tollu ci fukki saaku ceeb jot nañ ko fa sàcc ci jamono joo xamante ni police yi commissariat bu Parcelles Assainies ñoo doon assuré garde ba bu ñenn ñuy yeewoo ca village boobe di Cambérène policier yi nga xamante ni ñooy faral di garder boobule stock saa su ne askan ba leen di romb ñuy nelaw te nag li ci doy waar moo di ñoom policier yooyee dañuy biddanti yi su ne li lee waral nag ba ku ñuy wax Génia ak Pape M Seck daal di lal seeni plan ngir fas yéene sacc ay saaku ceeb yu nga xamante ni police ñoo koy garde ñii ñoo dëgër fit nag sàcc bay sàcc policier sàcc gi nag mu ngi xew samedi gi nu génn ca école élémentaire numéro un ba nekk ca Cambérène mi nga xamante ni foofa lañ doon denc ceeb bi waaye nag mu mel ni sàcc bu dul raw jër te yàqi nelaw ndax lu yàggul dara ginnaaw bi ñu jotee sàcc saaku ceeb yi ci la leen waa section de recherche bu Colobane dat leen di teg loxo ba tey bu ñu sukkandiku ci témoignage yi ñenn ci nit yoo nga xamante ni ñoo ngi dëkk foofee ca Cambérène ñaari sàcc yi dañoo bàyyi ba mu guddi ñu daal di gaare ab sareetu fas daal di ubbi bunt bu mag bi nekk ci école bi nga xamante ni moo leen di yóbbu directement ci fi ñu denc bile dundu ca noonee la ñu daal di chargé charrette bi ba mu dell daal di génnaat jaaraat fa ñu jaaroon nara dem jaayi ceeb bi nga xamante ni sàcc nañ ko waaye mbir moomee du mujjee yomb si ñoom ndax kat ab hold-up la leen waa gendarmerie bu Colobane dal di tegal ay paa yu soriwul dara ginnaaw bi ñu génnee école bi ci la leen way takk der yi daat leen it tegi loxo daat leen takkal ay manot ginnaaw bi ñu jàppee nag ñi nga xamante ni ñoo di sàcc yi ndawi commandant Abdou Mbengue yi defuñu dara lu dul dem ba ca policiers yi nga xamante ni ñoo doon garder tey nelaw ñu daal deen yee xamal leen ni am na ay intrus ñu duggoon ci dépôt bi doon sàcc ay ceeb te ñoom sax jot dañ leen a teg loxo ñoom gendarme yi waaye nag euh, li ci doy waar ginnaaw bi nga xamante ni gendarme yi jàpp nañ sàcc yi nga xamante ni doon nañ sàcc policier yi ñii di waa hiérarchie bu police dañoo bëggoon gendarmerie daat leen di jébbal dossier bi ngir ñu enquêter si waaye nag euh, bi lee demande ñii di waa gendarmerie dañoo lank ba tudd ci suuf ndax kat euh, ñoom ñoo def seen kéemtalaay kàttan ba jàpp ay sàcc ci jamono jo ci bërëb boo xamante ni police moo habilité pour assurer sécurité ba noonee nag la waa gendarmerie dal di procédé ci audition yi Géna nag ak Pape M Seck ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp ni ñoo doon sàcc ceeb bi jot nañoo def ñaari fan ci ab garde à vue foofee ca gendarmerie laata rek ñu leen di présenter procureur ngir délit ak vol en réunion.